Bonsoir, à je m'appelle Lamine Kamara, international U20. Euh, tey dama ñëw fii pour présenter leen sama onze de onze de rêve bon pour commencer si but yi je préfère euh, teg Ter parce que gardien la boo xamante ne ok équipe adverse bu la tegee pressing bu métti bu la jëlee bloc haut moom mon nga jaaree si moom mu mu mu jàmpale la si sortie te bali quoi en fait moom gardien la boo xamante ne genre bu ñu leen bu ñu leen mën na jouer ballon pied macha allah te am na relance yi relance yi relance baax a baax donc Ter Stegen mooy sama gardien euh, si axe bi je préfère teg Araujo parce que défenseur la boo xamante ne boo ko amee si axe bi surpoids la quoi parce que moom dafa xarañ trop te moom euh, dafa gars koy sóoraale trop parce que ñëpp nii naan daa mbaame mais man je trouve que dafa am jëriñ trop si équipe parce que. day jox day day motiver joueur mi tey day indi assurance yi sa sa défense bi euh, keneen ki mooy Ramos moom ak Araujo presque même profil bi la euh, parce que Ramos tamit daa am expérience te moom tamit boo ko amee si défense bi assurance la tamit de plus que euh, Araujo donc ñoom ñaar mën nañ def paire bu baax si droite Alexandre Arnold parce que moom défenseur la boo xam tamit il est bon balle au pied té mën la indil passe décisive à tout moment si match bi donc euh, boko amé tamit si équipe euh, plus la tamit mom euh, Alexandre Arnold keneen ki mooy latéral gauche mais mooy Cancelo c'est vrai que du gaucher de métier mais mom polyvalent la quoi té Cancelo té boko amé Arnold ñaari latéral latéral yo xamante mën nañ la indil ay passe décisive bari té mën nañ la indil si mën nañ la jappalé si jeu bi donc Cancelo mooy sama benn latéral gauche si milieu bi sentinelle euh, Gana Gueye je préfère dégg Gana Gueye parce que moom bokk na samay idole joueur boo xamante ne na dama koy suivre de trop te qualité marquage bu muy pressing bu muy pressing équipe adverse daf ma neex trop te ak euh, nu muy jàppale équipe bi si côté physique di daw moom te daw rek da lay jàppale si côté marquage donc euh, Gana Gueye mooy sama sentinelle keneen ki mooy Tony Cross Tony Cross mooy accompagner Gana Gueye parce que moom boo ko amee ak Gana Gueye euh, Gana Gueye dina def liggéeyu précis mais moom boo ko amee dina la jàppale si tempo de jeu bi parce que Cross joueur boo xamante ne mën na la gérer rythme match bi bu bëggee accélérer équipe bi dina accélérer bu bëgg na bëggee posé wu tamit équipe bi mën na posé donc Cross boo ko amee si qualité boobu ak Gana Gueye je pense que def faire bu baax keneen ki mooy troisième bi mooy Iniesta Iñasa boo ko amee cross mun nga am possession de balle te mun nga am passe décisive yu bëri si milieu terrain boobu parce que Iñasa moom eh, dafa fort trop si qualité si milieu terrain ak vision des jeux ak qualité de tous bali passe yi donc Iñasa boo ko amee ak cross kooku mun nañ def per bu baax eh, si point de bi je préfère teg Benzema parce que Benzema tamit attaquant la boo xamante ne dafa am qualité yu bëri yoo at yéen attaquant yi amul. mën na décrocher jàppale équipe bi si jeu tamit mën na la jàppale si côté technique euh, tous technique yi donc euh, mun na poser jeu bi tamit moom ak déplacement bi ak finition si but bi donc Benzema boo ko amee si point bi moom mooy sama point préféré ko keneen ki mooy Sadio maane moom tamit euh, dama ko admirer trop parce que Sadio Mané jour la boo xamante ne dafa bëri humilité te boo ko amee si équipe bi tamit mun na la jàppale si lu bëri bëri parce que moom tamit daa bëri ay qualité si percussion si marquage si finition donc Sadio Mané macha allah soo ko amee équipe soo ko ak équipe équipe yëpp rêvé nañ am Sadio Mané seen équipe donc boo ko plus la tamit quoi beneen next entraîneur bi Mbappé Mbappé tamit euh, moom le la comme xamante ne ñëpp ko admire quoi parce que nu muy bëgg bëggam quoi day bëgg yobu équipe bi ci victoire ak percussion ak. Euh, plutôt dribble yi muy def ak finition macha allah donc euh, mbappe boo ko amee ak Benzema ak Sadio Mané quoi que attaque boobu mun na def euh, lu lu coach bi bëgg moom mooy sama onze bon mooy sama onze préféré si si joueur